jërë ngeen jëf euh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee ñu bëggoon wax rek ci euh, communiqué bi nga xamante ni ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur génnee nañ ko di expliquer di justifier wu ci renouvellement wu passeport diplomatique gu président Ousmane Sonko ndax keroog vendredi bi muy jàkkaaroog taskatu xibaar yi dafa brandir passeport diplomatique am wane ne moom mu ngi yore passeport te bu bëggee tukki dina tukki. te passeport bi waa ministère des affaires étrangères ñoom ñoo ko euh, renouveler te moom mu ngi nekk sous contrôle judiciaire léegi wax jooju Ousmane Sonko wax est-ce que jar na ñoom en tant que ministère de souveraineté ñuy génne communiqué un dimanche di justifier lu tax ñu renouveler président Ousmane Sonko passeport diplomatique am kon ñii chaque jour ñi ngi wane ne ñoom complot bi dëgg la te ñoom ay comploteur lañ te Ousmane Sonko daf leen tiital daf leen jaaxal dafa yóbbu seen fit parce que heure bu Ousmane Sonko waxee rek di nga gis ñu génnee communiqué justifié wu wala ñu génn di wax di tontu kon ñu jàpp ne Sénégal amatul état maanaam valeuru état ñun perte nañ ko depuis bi Macky Sall nekkee président ba léegi parce que nguur gu waaye dee nii nguur gu ñàkkee xorom nii nguur gu ñàkkee xam priorité ni nguuru Macky sàll gi man masuma ko gis et ci biir communiqué bi ñu ngi préciser naan bureau assemblée national mooy bind euh, ministère bi pour mu renouveler député yi seen passeport diplomatique amul benn juge boo xamante ni mën na tere ministère des affaires étrangères mu renouveler député passeport diplomatique am ba pare nag ñu ne ci seen communiqué bi ne terewul Ousmane Sonko nekk sous contrôle judiciaire mel ni ñoom ñooy justice bay wax ne usman Sonko mu ngi ci sous contrôle judiciaire ba léegi terewul mu nekk sous contrôle judiciaire mais lan mooy seen yoon ñoom en tant que ministère des affaires étrangères ci sous contrôle judiciaire Ousmane Sonko justification bi jaru ko woon naan lii moo tax ñu renouveler ko waxuma la nag ñuy préciser ci biir communiqué bi naan Ousmane Sonko loolu terewukaa nekk. sous contrôle judiciaire ba léegi kon déjà ñii seen complot bi dafa nekk dëgg à chaque fois bu ñu waxee rek dañuy feeñal seen bopp ñàkk nañ fayda ñàkk nañ xorom te war nañoo mën a tal leneen lu dul di tontuwante ak le président Ousmane Sonko Sénégal dafa am ay priorité dafa am lu tax ñu dénk leen Sénégal Sénégal dafa nekk ci ay jafe-jafe ministère bi nii liggéeyam mooy mu nemmeeku sénégalais yi nekk ci biti jafe-jafe ñu président Ousmane Sonko passeport diplomatique renouvelé la c'est pas la première fois ñu def ko njëkkoon nañ ko def muy le ministère de l'intérieur le ministère de souveraineté dirigé par le grand comploteur di Antoine John. nga xam ne Macky Sall da ko jël pour muy def répression ci kaw nit ñi bi gars yi defee leve du fonds bu nemmeeku tour bi mais génne woon na fi moom tamit communiqué un samedi di jéem a menacé ne dafay dissoudre parti bi mel ni ku tiit ñi daal vraiment ay cuune lañ te chaque jour ñi nga wan Sénégalais yi ne ay cuune lañ gouvernement gàcce la gouvernement bu incompétent la gouvernement bu tële la